ñu jaajëfal bu baax euh, Mamantar Ndour ak ay euh, ganaam éthique euh, ñu doon waxtaanee lu am solo ñu nekk période bu tàngaay muy euh, canicule euh, ndox am solo lool naam lekk am na solo waaye ndox itam am na solo lool ci période bi maanaam anamop naan gi yan boisson nga war a privilégié yooyu yëpp defe naa ne askan wi jëlee nañ ci njëriñ defe naa dañuy resté ci sillage boobu ñu doon wax ci wàllu wér-gu-yaram ak diététique dañuy wéy ak weer le weer weer le ma ciy fegoo ak docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj tey euh, ñuy continuer pàcc bi nga xamante ne fa la ñu yemoon te jotuñu ko woon àggali ndax ñi nga xamante ne ñoo di askan wi safoo lool leeru jamono ñoom ñoo doon dugg lu ci ëpp di jagleel ay laaj docteur bi ñoom tamit si waxtaan wi la ñu bokk ñu leen di xaar ci 88 628 99 90 14 waaye suñu développé ba noppi suñu doxalee lu toll ci ñaar fukki simili ak juróom wala fanweeri simili ñu doog a ci li nga xamante ne moom moo di téléphone bi page Facebook bi itam boobaak léegi laaj yi ñu ngi continuer di woy ñu leen di wax ne mun nañu woy di yónnee seen laaj ci li nga xamante ne moom la ñuy continuer di waxtaanee mu aju ci arthrite ak li nga xamante ne moom moo di arthrose maanaam jàngoro yi nga xamante ne yax lay laal euh, euh, euh, dañ koy gën a yaatal naa ma tàmbali woon nañ ko ay bés bale ñu génn kon du ma def lu dul dala docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj bàyyi ko mu nuyoog askan wi ba noppi ñu doog a sóobu ci waxtaan wi docteur maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi soxna Awa Diop Ndiaye asalaam déglukat yi ak mbokk téléspectateurs yi soxna si damay sant yàlla subhaanahu wa di surtout gërëm waa Sénégal parce que quand am naa chance boo xam ni maa ngi koy sant yàlla di ko sant sénégalais yi ci loolu quand dama ciy jiital sama waajur wu jigéen nga xam ni xëy na bu nit ñi demee ba may gërëm wala di wax ni maa ngi def lenn lu baax ci moom la jógee di ci toftal tamit euh, li ma am chance su juddu ci dëkk boo xam ni depuis ci maam El Hadj Omar jàll ci maam El Hadj si Serigne Babacar si Cheikh Ahmadou Ba li nga xam ni maam Limaamu Laay ak ñëpp li nga xam ne ñoo fi nekk tax ñu mën a am ay comportement ak ay éducation yu mel ne nii mm-hmm. euh, du ma ci fàtte waaraatekat yi nga xam ni ñoom ñoom ci seeni éducation tàmbale ko ci Maxtaar Seck euh, Moustapha Gueye jaar ci ñu bëri waa rajo Dunya tout temps dañ doon toog di leen déglu waa Lamp Fall ak suñu jëwriñ euh, Sidi Lamine Niass dem ba ci euh, ñoom Iran Ndaw ak ñoom ñëpp ñuy leen di déglu pour defar suñu jikko euh, boole ko suñu éducation. Mhm. ñi nga xam ne tamit keroog jooju woote nañu ak ñi wootewul parce que ñu bëri ñu ngi jéggalu ci ñoom seen crédit yëpp dañ ko def ba sonn mënuñu. ñu ngi ciy jéggalu waaye ñi leen di wax ni yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm mënuma tudd kenn personnellement mais daal maa ngi sant ñëpp. Mhm. Euh, di wax ni quand yàlla nañu yàlla dimbali jàppale ñu ba lii nga xam ni moom la ñuy sóobu ñu koy continuer mhm. euh, di gërëm tamit sama doom comme étudiante en médecine la euh, ak mbooleem xaritam yi nga xam ni saa yu ñuy def émission bi dañuy ñëw di ko ci cokkaas di ko tooñ ñu ngi leen di encourager di leen wax ni médecine jafe na waaye tamit comme c'est un métier noobul ñu góorgóorlu ba nga xam ni ëllëg ñoom ñoo ñuy remplacer mhm. donc di gërëm waa Sénégal yépp daal jërëjëf euh, docteur Cheikh Ahmed Tidiane euh, Mbodj yaakaar naa ne ñoom ñu jara delloo njukkal lañu ndax euh, ku nekk ci télé di wax ak euh, ngir ñu déglu ñi lay déglu ak ñi lay seetaan defe naa ne ñooñu nga amal euh, njukkal gu rëy kon ñoom la ñuy delloo njukkal bi ndax ñoom ñoo ñu fi tax toog bu fekkoon ne suñu doon wax ba suba mhm. kenn dégluwuñu yaakaar naa ne kon tey jii suñu amuñu solo ngir ñu toog fii kon ñu leen di sant bu baax di leen wax ne bu mu ko bi ñoom ci lañu bokk mhm. ne fa Walfadjri leeru jamono li ko tax a jóg mooy gindi askan wi lépp loo xamante ne seeni tolof tolof la ñu jéem cee utub euh, saafara lépp loo xamante ne rek dañ ko umpale ñu jéem leen cee gindi loolu tax a jug itam émission bi di wér wérle yaakaar naa ne ko wérul doo mën a taxaw bay soobu ci liggéey ak yi des kon euh, yaakaar naa ne wàllu wérgu yaram kan wi la looloo tax euh, saa su jot rek ñu yàkkamti lii di émission weer weerle teew fii ak euh, sa teewaay ngir jagleel la ak laaj nga gindi leen ci itam docteur Cheikh Ahmed Tidiane keroog fi ñu yemoon fa la ñuy wéyandi dañuy def en résumé rek euh, jàngoro ji nga xamante ne njëkkoon nañ ko waxtaanee mhm. mu di arthrite mhm. ñu bëggoon nga dellu si waat ci arthrite en résumé laataa ñuy duggal ci artrose ndax keroog defe naa ne développé nañu arthrite arthrose moo ci desoon kon en résumé ci mën a jàpp. waaw jërëjëf soxna Awa Ndiaye euh, lu may wax rek moom mooy euh, saa ne bu ñu nekkee ci benn tawat. Mhm. laaj na ñu wax tawat bi euh, yaram lay laal dafa am lu ñu naan téngo xam nga nit ay téeméeri téeméeri téngo la am waaye lu ci am solo moom mooy bu amul woon téngo day jàddaaral doo mën a wax ba euh, tourner sa baat doo mën a sëgg doo mën a def dara téngo yi nag du rek ñaari yax ñoo laalante waaye yax yi laalante dafa am nu ñuy dunde ak nu ñuy def bu ñu demee nag ba loolu tawat la ñuy mën a wax ni am nañ arthrite wala am nañ arthrose waaye lu gën a yomb moom mooy dañuy am fii ay nataalu yax benn bi moom mooy yaxu woom boo gisee nu ñu laalante mhm. bu doon ñaari yax yi ñoo laalante euh, te amul dara lu nekk seen diggante kon dox dina metti te dina dina dina dina jafe moo tax borom bi subhaanahu wa defar fii lu ñu naan cartilage cartilage bi dafay mel ni comme ci auto amortisseur bépp feebar boo xam ni daf ko laal ci lu ci ëpp te muy yàqu moom la ñuy tuddee arthrose maanaam dafa mel ni dafa gaañu yàqu ba dem ñaari yax yi di laalante beneen bi ñuy war a waxtaan muy arthrite maanaam ci biir dafa mel ni benn mbuus boo xam ni dafa am benn ndox ndox boobu ñu koy tuddee synovie loo xam ni moom moo ko muur ñu koy tuddee membrane synoviale loolu bu demee ba feebar euh, di génne ay ndox di am ay euh, tàngoor ci biir mm-hmm. moom la wax arthrite maanaam donc Euh, li nga xam ni moo ëmb suux yi nga xam ni moo ëmb euh, téngo yooyu nekk ci biir dafay dund dund bi muy dund benn ndox la ak loo xam ni moom mooy defar ndox boobu mhm. bu demee nag ba ndeyu jàngoro walla leneen ñëw laal ko yàq ko mu commencé di mel ni luy bax ci biir loolu la ñuy wax arthrite yu feebar yu bari mën na ko indi mën nañ wax lu ñu naan goutte maanaam dafa am beneen ndox bu ñu naan acide urique bu demee ba ba fees bari ci yaram mën na indi gudd boobu ñaareel bi mun nañu wax li ñu naan polyarthrite rhumatoïde muy feebar bu doy waar boo xam ni ñi ngi koy gën a nemmeeku ci loxo yoo xam ni baaraam yoo xam ni day metti surtout guddi jëm suba teel nga xam ni da boo yewoo doo mën yëngal sa loxo yi muy metti metti yu tar euh, ñetteel bi mun nañu wax lu ñu naan rhumatisme articulaire aigu maanaam xale yi lu ci ëpp bu ñu amee ay angine maanaam waxu te benn ndeyu jàngoro bu ñu naan streptocoque di ko joxe bu ñu ko fajul bu baax mën na dem ba euh, tengo yu bëri bu ko laalee nag loolu sax garaawul waaye bu demee ba laal xol bi joxe lu ñu naan maladie rhumatismale loolu moom mooy musiba bi mhm. euh, beneen bi tamit euh, bu ñuy dem mën nañ wax arthrite septique maanaam loolu ñu def ci attention ndax te lu garaaw a garaaw la te dañuy war a hospitaliser nit ki bu ko amee maanaam nit ki mën na gaañu ci gaañu gaañu boo xam ne ci accident wala ñu koy dem sax di piqûre parce que piqûre yooyu tamit nañ ko bàyyee spécialiste yi mel ni ay rhumatologue maanaam am nga sa euh, téngo yu metti ñu jam la ci lu ñu naan cortisone bu ñu ko defee te defuñu ko ci anam bu sell boo xam ne ndeyu jàngoro yi dugg na ci wala yeneen feebar sax yoo xam ne ay nday jàngoro ñooy dugg ci euh, tengo yi mu nekk arthrite septique xam ni accident aussi mën na ko indi fekk fajuñu góom bi nekk à côté bu boobaa musiba la ndaxte il faut ñuy yóbbu euh, nit ki ci hospitalisation jëm ko faj ci ay antibiotiques yu baax ak réanimation pour que ëllëg euh, mënu ko faat wala sax mënul dem ba yàq téngo yooyu. Mhm. Euh, docteur kon euh, su ma déggee ci wàllu arthrite bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy euh, joxe di gut mhm. goutte googu ñu bëri di méngale ne goutte lekk yàpp gu bari moom moo koy waxal kon wàllu alimentation bi dina ci am solo. waaw dañuy wax ni gut dafa am loo xam ni mbalit la. xam nga boo lekkee jàpp ndawal ak yeneen i lekk. dafay ñi ngi koy lekke ci sa yaram dugal ko ci sa gémmiñ mu dugg ci euh, mbàq gi jaar ci butit yi dem ba ci deret bi day ñëw wër nag ba ci roño yi roño yi war ko raxas pour génne ko te ni mu koy génnee euh, lu ci ëpp ci benn ay ay ay ay ay yeneen euh, forme la maanaam daal loo lekk rek dina am lu lay jariñ ak loo xam ni mbalit la loolu ñuy wax acide urique nag dafa am nu mu war a toll si yaram bu demee ba ëpp bu boobaa daal euh, tengo yi nga xam ne lu ci ëpp moom mooy tengo euh, baaraamu déy bi mhm. bu boobaa mu nekk euh, goutte maanaam nuñ koy xamee moom mooy tànk bi day metti lool di tàng dootoo mën a day dafay metti ba nga xam ne bu ko mbubb wala dara bi laalee day metti kenn doo dootoo mën a def dara lu dul xanaa dem si docteur mu jox la surtout ay garab yu ñu naan colchicine en général bu la ko joxee benn fan ba ñaari fan mu daal di tane daal lay jox yoo garab yoo xam ne nag loolu lay wàññi goutte boobu. Mhm. évidemment lekk yi euh, dafa am ay euh, euh, ci ci ndawal yooyu dafay dem ba day produire mbalit yooyu parce que autant suukar mun nga ko lekk mu jox la kattan mais autant tamit ndawal mun nga ko lekk bu yàggee mu jox la. Euh, déchets yooyu déchets yooyu tamit boo demee ba am goutte nag dañ lay wax nga wàññi ko parce que mhm. boo ko wàññiwul day gën a bari te kon ni muy wàññeekoo day jafe waaye nit mun na am goutte tout simplement parce que yaramam dafa amul euh, kattanu di di éliminer rapidement loolu mhm. parce que tamit pour mun ko assimiler absolument xam nga feebar yu bëri nit dina ko am du sax question wu euh, dafay lekk lu bëri wala dafay naan lu bëri waaye dafa fekk rek yaramam ci boppam moo amul machine yoo xam ni mën na raxas bu baax yenn produit même ci cholestérol sax da ngay gis ay famille cholestérol yoo xam ni lu ñu mën mënti def ci régime tamit seen cholestérol du wàññeeku ba nga xam da ngay obligé jox leen ay garab donc ci guddi tamit am na ñu bëri ñoo xam ni dañ koy am ni l'essentiel boo ko amee te nga dem ci docteur bi bu la teelee faj ak dina baax parce que lu ñu ciy ragal moom mooy mu dem ba yàq roño parce que mun na joxe ay calcul ay xeer yoo xam ni xeeru roño la te mun na dem ba indi ay insuffisance rénale te mun na dem tamit ci der bi ba joxe fa ay boules yoo xam ne ñu koy tuddee tophis yooyu yëpp ay sàqu acide urique la te buñ ko fajul euh, dafay ñëw rek di continuer di tax mhm. ba euh, ngay ngay ngay ngay gën a am tawat boobu mhm. docteur su ma la déggee kon euh, mën nañu jàpp ne jàngoro goo xamante ne dañ koy faj ba mu wér la wala euh, benn traitement la boo xamante ne su la arthrite vie nga koy suivre. waaw xam nga loo xam ni dañu ni jàngoro yu bëri moo ko mën a joxe kenn mënul wax ni benn façon faj lañ koy defee mënul nekk te euh, faj bi tamit ci mu wér wala mu bañ a wér mi ngi nekk rek ci euh, tawat boobu nga xam ni mooy joxe loolu nan lañ ko nan la mel nan la bindoo. parce que tawat bu nekk dafa am dund boppam am na tawat yu ñu mën a faj mu wér mi ngi mel ni ku amoon buru mhm. dañ lay faj nga wér mais am na tawat yoo xam ni doo ko mën a faj mu wér mi ngi mel ni diabète wala tension artérielle donc bu ñu ñëwee ci artère dañuy nii li koy dafa bari xam nga bu dee artère bi ma wax léegi maanaam ndeyu jàngoro microbe parce que gaañu nga négliger ko mu jege sa wóom bi ba mu dugg ci tengo bi wala ñu pikiir la piqûre boo xam ni ci euh, tëngoo yi sellul mm-hmm. mu dugg ci biir xam nga kooku ndeyu jàngoro boobu nu muy jëkk a def d'abord day sa sa tëngoo boobu dafay métti métti waaye bu nga xam ni dootoo sax ko mën a yëngal guddeeg bëccëg muy métti sa yaram bi tàng ngay liw commencé siburu completement bu ñu def attention sax dañuy def da nga am pali fekk loolu la dina yomb nag par exemple bu nekkee ci tà euh, tëngoo euh, wóob waaye bu nekkee ci bi la mhm. xëy na dina gën a jafe mun nañ ko sax jaawale yeneen euh, feebar waaye lu am solo mooy loolu buñ ko teelee faj daal di jël euh, euh, pikiir génne ndox moomu xool ko ñu ne ah bii kat ndeyu jàngoro bii mun na am staphylocoque wala streptocoque wala nuñ mu mënati doon rek moo ko am ñu xool ko xool garab yi koy faj buñ la fajee da ngay wér peleg waaye loolu na fekk balaa muy am ñaari semaine ñu faj la nga wér sinon mun nga dem ba am ci laago wala nga faatu ci bu ñu waxee gut gut moom euh, mun nañ ko faj pratiquement ba mu wér parce que euh, euh, loolu nga xam ne acide urique bi la xam nga bu ñëwee ba jox yàq tengo boobu mhm. waaye bu ñu la fajee colchicine ba nga xam ni tane nga amatoo benn métit léegi nag dañ lay jox loo xam ni dafay wàññi de manière constante Euh, euh, acide urique boobu mu mel ni lu ñu naan zylorique nga jël ko di ko jël ba sàq yi nga xam ni moo doon nekk ci yow maanaam réserve yooyu nga xam ni de de cristaux euh, d'acide urique nga xam ni mhm. moo nekk ci der bi wala ca yeneen ya bu demee dema dema dem ba jeex mun nañ wax ni quand même en ce moment là mun nga wér noonu lañ koy xoolee rek bu dee polyarthrite rhumatoïde malheureusement mënuñu ko faj nii daal di wax jeex na parce que sa yaram maladie auto-immune la xam nga maladie auto mooy sa yaram nga xam ni daf la waroon aar parce que yaram dafa fiir ba lu ñëw ci moom mu protéger ko mais mhm. malheureusement yenn saa sa yaram mooy xeex sa yaram donc yaram bi day jël ay anticorps yoo xam ni day ñëw ci téngo yi loolu ma waxoon euh, sinovial boobu mu commencé di ko attaquer membrane sinoviale bi def fa ay ñi ba yàq lépp lu nga xam ni mooy téngo euh, kooku boo ko teelee faj mhm. ci ñaari anam dafa am faj yi nga xam ni daf koy calmer rek moom mooy buñ la joxee paracétamol am na solo wala li ñu naan anti inflammatoire non stéroïdien yooyu daf koy daf koy kalme parce que métti ñaareel bi nag ñu jox la yooyu nga xam ni moom mooy euh, ay garab yoo xam ne ñu bari sax dañ ko ragal mën na nekk sat wala comme ay nivaquine dérivé nivaquine ak yeneen ak yeneen yoo xam ni moom mooy tax mu freiné mais tawat boobu boo ko teelee teelee nemmeeku dem ci rhumatologue yi mhm. ñu teel faj di nga dem ba sa loxo ak say baaraam xëy na du mujj laago donc foofu teel a faj bi moo am solo waaye nag malheureusement comme maladie auto-immune la euh, dañuy ñëw rek di ko calmer jusqu'à présent daal fa la ñu yem xëy na nag recherche yi mi ngi am ay kii yu bees yu nga xam ni am nañ ci yaakaar mhm. nga am na yoo xam ni mun nañ ko faj mu daj waaye am na yoo xam ne nañu ko faj tout dépend rek ci lan moo sookee arthrite boobu. Mhm. docteur ci résumé daal ci tënk ci li ma mën a jàpp moo di ne combinaison ay euh, jàngoro yu bëri la. Mhm. moom mooy indi li nga xamante ne moom moo di arthrite boobu. Mhm. mu bëri kon ay façon ak ay manifestation bu fekkee ne ci wàllu goutte bi la. am na anam goo xamante ne mun nañ koo def. Euh, faj ko mu wér. waaye ci yeneen anam yi. Euh, calmant dong lay mun a nekk ci doomu aadama bi. kon mun nañoo. tegee wet li nga xamante ne moom moo di arthrite bi ñuy soobu ci bi nga xamante ne jotuñu ci woon xuus mu di arthrose bi waaye laataa loolu ma fàttali téléspectateurs yi ne mën nañ bokk ci waxtaan bi ci 88 628 114 wala suñu page euh, Facebook weer weerle ñu jagleel ñu laaj yi dinañ ci indi ay tontu ci biir euh, li nga xamante ne moom moo di plateau bi ci biir waxtaan wi docteur Cheikh Ahmed ñu ñëw ci li nga xamante ne kon moom mooy arthrose gannaaw bi ñu leeralee li nga xamante ne moom mooy arthrite forme de manifestation yi wax nañ ko lan moo koy sookee wax nañ ko ak anam gi nga xamante ne yenn yi ciy wér ak yi nga xamante ne calmant dong lay doon tey jii nga bëgguñu war ñoo xamale ak li nga xamante ne moom moo di arthrose. voilà. Mhm. Euh, xam nga li ñu waxoon euh, sànq ci ñaari yax yoo xam ni dañoo laalante nii bu amul woon loo xam ni moo nekk euh, ci diggante bi di def mhm. dina ñàng parce que ñaari yax yuy frottante dafay metti donc borom bi subhaanahu wa taala di ñëw def ci li ñu naan cartilage cartilage nag boo xoolee ñangeen yi nga xam ni dañoo bëgg yeel ñoom bu buñ ko xoolee bu ma leen waxee noonu rek dinañ xam lan mooy cartilage gis nañ ni lu ritax la loo xam ni euh, vraiment dina tax ñaari yax yi bu ñuy dawalante doo ko yëg sinon bu loolu amul woon nit bu la rombee da ngay dégg ay kàkk kàkki kàkki kàkki ba nga xam ni di nga xam ni kii xam naa kon sàcc yi duñu bari parce que fu ñu romb ñu xàmmee leen ala mhm. kuleyaal loolu nag dafay dund dund bu rafet waaye bu demee ba nga am yenn at yi yenn saa yi wala nga defoon accident gaañu ci wala sax ci ndono nga gis ni ni sa bos bi bindoo xëy na baaxul parce que tamit toujours nit yàlla dafa def nit ñu nga xam ni dañoo dëgër këj lu lu mënti am tamit seen ci dafa baax ak ñoo xam ni dañoo gaaw a am ay feebar loolu aussi mën na tax nit am arthrose waaw mu mel ni docteur tàmbale nañoo fëgg ci bunt bi asalaamaaleykum Eh, waaleykum ah, la wa rahmatulah soxna maa ngi leen di siyaare. delloo ziar bu weex sëñ bi tur bi naka la fooy wootee. waaw ma ngi xawal lañ nag. waa lebal nañ la ko ñu ngi lay déglu. waaye di di leen siyaar di liggéey rafet na lool. jërëjëf. di siyaare loolu ko yàlla yàggal ko fi may ko fan ci diwaan bi wér. amiin waaw man numéro kii woo la soxla. numéro euh, kii bi médecin bi. ah. numéro ma ne euh, da ngay euh, dem ci régi bi dinañ la jox numéro docteur bul coupé waa régie jël la. waaw. jërëjëf sëñ bi. kon docteur ah, fi nga taxawoon. waaw xam nga léegi bu dee donc li koy mën a sooke xëy na nga mag. loolu yàqu bu yàqoo nag ba nga xam ni yax yi ñi ngi laalante nga dem ci radiologue bi d'abord lu mu lay def daf lay def ay métit yoo xam ni surtout suba gi mën nga am jàmm waaye booy dox dox dox parce que xam nga luy frottante di laalante mhm. di ngay gaañu noonu dangay dem ba ngoon rek muy faral di métti yenn saa yi boo yéeg escalier muy métti surtout soxna yi nga xam ne dañoo am yaram ak yooyu mhm. donc euh, arthrose boobu euh, daanaka mën nañ wax ni ñaari yax yooyu li ñuy laalante fa ñu fa ñu doon laalante mooy dem ba màggat yàqu daal di dagg nga xam ni boo defee rajo radiologue bi di la wax ni na mu waroon ñaari yax yi waroon waroon waroon euh, euh, séparé woo dañuy dem ba laalante ñu koy tuddee pincement articulaire mm-hmm. dina am tamit lu ñu naan ay remaniement maanaam yax bi day commencé di yàqu di am lu ñu naan sclérose ba pare dem daal di am yeneen yax yu bees yu ñu naan ostéophyte yoo xam ni dafay nekk foofu yëpp dangay dem ba boo xoolee sax téngo yi surtout ci euh, kii genou yi dafay mujj déformé wu ba nga xam ni vraiment tànk yi commencé rinki yi dugg ba nga xam ni franchement dangay xool nit ki ni ngay wax sax kii nan lay mën a doxe wala nan lay mën a euh, continuer euh, dunde noonu mhm. donc bu boobaa nag bu ñu demee ba mu ba egg foofu day faj bi dina gën a doy waar mais lu am solo c'est que ñun médecins yi tàmm nañu ku am arthrose rek lu ñuy jëkk xalaat jox la ay anti-inflammatoire non stéroïdien mhm. ñëpp xam ñoo koy dem jëlali sa bopp mais nañu xool ni surtout bu dee tàmbali bi euh, éducation nit ki daf ci am solo bu dee ku rëy am yaram ba mel ni sama doomu nijaay bi sali salite bi am ma moom xam nga ku koo xam ni un mètre cinquante nga nekk ñetti bërigo cent cinquante kilos xam nga kooku boo pour nga am arthrose dafay doy waar uh-huh. bon mais xam naa ni comme dinaa ko faj moom xam naa yaakaar ni bu wàññee lekk rek dina tane uh-huh. léegi ñaareel bi mm-hmm. euh, moom mooy Euh, euh, dañuy war a def ay éducation ak kinésithérapie mhm. di joxe tamit garab yu simple yi ay paracétamol ah def éducation képp ku nga xam ni mën na def kinésithérapie massage ak yooyu ñu la koy defal boole ko ci di la mhm. wax nag dee leen moytu yëkkati yu lu diis ak taxaw bu yàgg lool lool lool ak tamit booy dox xam nga am na ñoo xam ne dañuy sport di dox ci ay terrain yoo xam ni jaxasoo ak yooyu mm-hmm. boo amee arthrose ngay dox ci terrain yoo xam ni dafa plat yooyu yëpp la ñu war a def après nag ñu doog a dugg ci traitement <laughs> mm-hmm. allo waaw soxna si na ngeen def sant alhamdulilah soxna si tur bi naka la koy kontaan ci émission bi jërëjëf damay lépp tur bi nag lebal nañ la ko. léegi docteur bi damaa bëggoon mu wax mu dama ko doon laaj ndax astrologie ak rhumatisme ndax benn la mu laalaale rhumatisme ndax fu mu ne nii ñun ñëpp ñu ngi jàkkaarloog tawet mhm. ku ci am jàngoro rek dina bëgg ñu tudd ko. dëgg la wax affaire rhumatisme. incha allah kontaan nañ ci émission bi nag te yow sa fan tulaa nag Aïssatou Diop. jërëjëf jërëjëf. kontaan naa ci yow trop. jërëjëf yaa booy. merci jërëjëf. merci beaucoup. waaw kay xam nga eh. euh, li mu wax am na solo ndaxte ay wax mën na jaxasoo yenn saa yi mu nekk même wax bi te duñ ko xam mhm. xam nga euh, dañuy wax rhumatisme bañ nañ ko ba docteur bi faj mbirum rhumatisme ñu koy tuddee rhumatologue mhm. maanaam lépp loo xam ni feebaru téngo la dem ba ci feebaru yax parce que xam nga ñun dañuy wax téngoo rek moom mooy fi yax yi euh, laalante waaye feebaru yax ci boppam tamit ñu ngi koy tuddee donc des rhumatismes mhm. léegi nag bu dee rhumatisme Euh, euh, euh, dafa yàqu cartilage bi li ñu doon wax léegi dafa yàqu loolu ñu koy tuddee rhumatisme dégénératif moom mooy arthrose waaw donc rhumatisme moom mooy lépp buñ ko nee rhumatisme dégénératif maanaam rhumatisme boo xam ni mbir mi dafa yàqu di di dem ba toskare ñu loolu mooy arthrose bu ñu demee nag ci lu ñu naan rhumatisme inflammatoire mhm. maanaam rhumatisme boo xam ni day togg di tàng di ànd ak yaram buy tàng ak métit yooyu nga xam ni mooy métitu guddi yi sa sa téngo yi di tàng dëgg-dëgg ñu koy tuddee rhumatisme inflammatoire nga xam ni boo defee ay analyse u deret dafa am lu ñu naan vitesse de sédiment CRP day yéeg moom nga sa yaram di tàng eh, ak yooyu moom mooy lii ñu wax arthrite moom mooy mu doog loolu mooy arthrite arthrite daal moom mooy rhumatisme boo xam ni sa yaram bi dafa sa téngoo yi day tàng en général mhm. moom mooy yi ñu waxoon goutte waaw bu dee microbe ay do ndeyu jàngaroo ñoo nekk ci biir wala polyarthrite rhumatoïde bu dee nag rhumatisme bi nga xam ni moom mooy mbir mi dafa dem ba màgget yàqu moom la ñuy tuddee arthrose mhm. donc euh, rhumatisme mooy ndey ji bu ñu lee dégénératif moom mooy arthrose bu dee inflammatoire maanaam di togg di tàng moom mooy yi ñu wax yëpp moom mooy arthrite. voilà mhm. euh, kon euh, mën nañu méngale li nga xamante ne kon moom la soxna si di rhumatisme ak li nga xamante ne moom moo di artrite maanaam euh, suñu ja euh, si li ñuy jàngat yëpp kon rhumatisme moom moo ëmb voilà li nga xamante ne moom mooy euh, jàngoro yi aajo ci yax yooyu maanaam cartilage yi nga xamante ne mhm. yàqu nañ dem ba yax yi di laale mais lan mooy faral di indi dem tey ba cartilage boobu usé wu xam nga wax naa ni poids eh, bokk na ci waaw xam nga ku ni wax naa sama sama doomu nijaay bi <laughs> Sali Kébé. 1 uh-huh. mètre 50 150 kilos xam nga poids boobu lépp ay ay ay ay kii wóom yore. day am problème voilà. Mm-hmm. allo allo. Mm-hmm. oui allo asalaamaaleykum. allo. waaw allo waaw. allo. ci bul déglu sa télé da ngay déglu téléphone bi allo. allo. allo. waa asalaamaaleykum ñu ngi lay dégg. aleykum wa rahmatulah barakaat. Euh, tur bi naka la fooy wote ah Papa Kane. waaye ñu ngi lay déglu dafa am laaj booy jagleel docteur. waaw ma ne. man dama am tension. waaw. souvent souvent benn wet bi yëpp dafa dafa dafa dee. waaw. fu ne nii fu ne nii boobu boobu boobu ah su ma yaramul léegi mu loolu lu lu lu ci garabam. Mhm. Ah, dinañ ci indi tontu. waaw moom da toog sa kanamu télé. raccroché waaw. waaw non mel na ni ah. dafa am AVC. AVC waaw ay séquelles u AVC maanaam. hémiplégie mhm. maanaam ku am tension. benn côté bi paralysé ba ba ba yóor gi deret bi euh, sidditu yóor gi pàcc fat kii daal toj. Mhm. wala sax fat bu boobaa nit ki. comme yóor ñaar la côté ndeyjoor bi ah, bi nekk ci ndeyjoor bi mooy commandé euh, càmmoñ bi côté càmmoñ bi di commandé ndeyjoor bi moom dafa am certainement AVC surtout AVC bi buñ ko xoolee euh, côté côté càmmoñ la war a doon parce que côté càmmoñ bi boo demee bay wax rek souvent lu ci ëpp côté càmmoñ bi euh, moom na na continuer rek def li mu doon def maanaam bu boobaa dafay faj traitement tension bi lu ci ëpp dinañ ko jox traitement anticholestérol dinañ ko jox aspirine mooy aspégique mhm. mu continuer ko après dootul am problème voilà ok allo asalaamaaleykum allo allo waa sëñ bi ñu ngi lay nuyu na def bul déglu télé bi waaw non déglu ma télé bi waaw ñu ngi lay déglu na def ñu ngi sant alhamdulilah bi naka la man àll taal. waaw ñu ngi lay déglu waaw ñu ngi lay déglu dafa am laaj booy jagleel docteur. maa ngi woote Nord Foire. li may woote mbirum garab. Mhm. damay woote ci jëmm ji taw. Mhm. ngi lay déglu allo. Mhm. waaw mu mel ni. Euh, ah, dafa dagg kooku moom sama doomu ndey la. <laughs> dëgg taal ku baax. koo xam ni vraiment lu bëri. ci ni ñuy jaamoo yàlla maa ngi koy jële ci moom maa ngi koy sant di di ko gërëm xam naa bu waxoon moom euh, ba eggale moom beneen affaire la mais maa ngi koy sant taalube euh, Serigne Choy bu Mbàkke bu mag la kooku mm-hmm. moom ku baax la maa ngi koy sant di ko gërëm ñoo dëkkandoo yàlla na ko yàlla gën a yokk daal vraiment amin amin mm-hmm. Euh, fi ñu yemoon rek gannaaw bi nga xamante ne mooy euh, surplus de poids bi. wala euh, tey xam nga nee naa la mm-hmm. am na ñoo xam ni seen tëngoo yi dafa baaxul parce que yàlla ni mu leen binde wala ci seen ci seen famille dañu am problème donc xam nga loolu bu boobaa ñu mën nañ gaaw a am arthrose lu ci ëpp nag. ci mag lay doon tamit boo demee ba màgget quoi. allo mm-hmm. mm-hmm. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bi tur bi naka la fooy wote maa ngi woote léegi maay àll Sall. waaw jërëjëf waay àll. damay seet tuuti rek. ci mag. Mm-hmm. Mm-hmm. ci kooku toog. ak li ci ëpp solo moo di xool. moom. ah mu mel ni bu mu jokko bi day saturé nag soo appel yi mm-hmm. bëree day euh, saturé mm-hmm. eh, mais docteur ñu wéyandi rek euh, fi nga doon wax nee par rapport à l'âge daf ciy joué par rapport ak li nga xamante ne mooy surplus de poids bi également ak ñi nga xam ne am nañ ay accident mm-hmm. yu jege seen euh, tengo xam nga bu yàggee day day dafay def noonu wala ñi soox ñi am laago di soox comme ñi am lu ñu naan Euh, scoliose. Mhm. maanaam seen seen seen seen euh, seen colonne vertébrale bi jubul yaxu ginnaaw yi jubul. Mhm. bon kooku xam nga bu ñuy dox rek tout temps ñu ngi soox ba nga xam ni bu yàggee dafay indi euh, donc arthrose lu ci ëpp nag quand nañu xam ni dem ba nekk mag. Euh, moom mooy gën a tax mañ nañ ko ba ñu koy tuddee woppus màgget mhm. donc euh, di joxe ay arthrose quoi docteur am na benn laaj euh, kii ci Facebook bi mi ngi tudd Jalika Sow nee na mi ngi rafetlu émission bi waaye dafa bëggoon xam arthrose lan lay bañ waaw arthrose lan lay bañ moom mooy xam nga nee naa léegi boo ko amee moytul di yëkkati lu diis trop trop mhm. surtout côté bi nga amee arthrose ñaareel bi bu dee da nga am poids bu mag euh, tout dépend ci arthrose fi mu toll quand même surtout bu dee ay affaire euh, euh, kii la nga fexe ba wàññi sa poids mhm. léegi dangay war tamit di def ay exercice physique maanaam munoo am arthrose rek toog benn place doo yëngu parce que à metit bi da ngay dem ba dafay am lu ñu naan raideur maanaam ni ngay mën a yëngale sa cër yi dootoo ko mën a def comme il faut mhm. donc loolu tax na euh, boo amee arthrose li muy bañ tamit moom mooy toog benn place sédentarité doo bouger doo def dara euh, ñu wax surtout li nga war a def parce que kinésithérapie maanaam massage daf ci am solo moytul tamit di taxaw taxaw yu yàgg lool loo xam ne lépp luy sëf rek euh, articulaire maanaam tengo yi mhm. euh, même bu doon comme xaalis da nga war a da koy war a économiser di ci ni nga koy uti ci ni nga koy utiliser donc yooyu yëpp mun na tax quand même euh, waxoon naa sànq tamit ni comme booy dox ci ci ci moytu ci euh, dox ci fu dëgër trop trop trop trop wala fu accidenté trop nga xam ni tout le temps yax yi da ngay mettre en yax yi mhm. allo asalaamaaleykum waaleykum waaw sëñ bi tur bi naka la fooy wote Mamour da dangay wàññi télé bi tuuti dégg-dégg bi gën a neex. waaw ñu ngi lay déglu dafa am laaj booy jagleel docteur. waaw yokkal baat bi tuuti nga wàññi télé bi. ma mhm. ne ma ne waaw. damay lan. boo déglu dégguñu la bu baax de soo mënoon soli télé bi bu baax moo la nga wàññi ko ndax télé bi rek lañuy dégg fi mu nekk nii. mu mel ni euh, dagg na kon euh, docteur ñu wéyandi rek euh, fi ñu yemoon ci arthrose boobu tey su ma la déggee docteur si li nga xamante ne moom moo koy joxe. manifestation yeeg yooyu ndax euh, moom euh, dañ koy calmer rek wala mën nañu def ay saafara ba mu weex ah fi ñu toll moom euh, mënuñu faj arthrose ba mu wér fi ñu toll mhm. ndaxte xam nga lu yàqu la rek loo xam ni yàqu na pour ñu remplacer ko mënul nekk pour le moment waaye xam nga jamono day dox de am na gars yi ñu ngi def ay recherche ba ñu nga xam ni pour régénérer arthrose kii defaraat kii bi cartilage bi mhm. waaye fi ñu toll bu xalaat nañ ñu ni bu xasee ba yàqu léegi dañuy def attention pour mu bañ a euh, gën a yàqu mhm. moo tax ci commencement bi ci tàmbali bi am na ay euh, garab protecteur yoo xam ni dañu ni dafay fexe ba li des ci euh, articulation bi ci li des ci cartilage bi mu aar ko ñu koy joxe ay joxe yu yàgg waaye lu am solo moom mooy à part joxe ay garab yoo xam ni day wàññi métit bi mhm. ma commencé ci man te ñun ñu yàgg def anti-inflammatoire yi il faut ñu wax nit ki attitude yi mu war a am tamit yenn saa yi war nga bu dee par exemple ay poussée aiguë maanaam boo xam ni dafa ñëw xam nga parce que dafa nekk mala feebar bu sax waaye yenn saa yi muy metti trop allo waay allo salaamaaleykum allo soxna man maa ñëwaat ma waaw damay laaj docteur. boo mhm. xam ne si buy dox yenn saa yi ci tànku ndëggu bi ndëggu bi ci suuf sidit boobu ci suuf. waa dëggu tànk bi waaw day yëg ba ci métti ba ci baaraamu day bi yenn saa mu sedd yenn saa mu métti lan moo ci kii. lan lan moo lan mooy def loolu. lan mooy def loolu daal ci tànku ndey joor waaw. waaw waaw léegi dañ koy wax xam naa après daal di continuer ci liñ doon euh, wax ci. Mhm. ci ci arthrose bi. kooku lu ci ëpp am na yenn saa yi lu ñu naan épine calcanéenne maanaam yax boobu bu ma ko xoolee mi ngi nii sax euh, yax bi nga xam ni euh, moom mooy yaxu ndëggu tànk bi mm-hmm. mën na yenn saa yi mu mel ni dafa am benn benn benn comme pont mm-hmm. boo xam ni dafa sax comme ni fi saxe nii mu saxe fi mm-hmm. xam nga bu boobaa suux bi booy dox ni mu ci kii day mel ni pont bu lay jam euh, yenn saa yi loolu moo koy def moo tax dañuy def rajo te surtout bu ñu lay yóbbee ci orthopédiste yi Euh, ak euh, chirurgien euh, des des os là. Mhm. bu ñu gisee ni loolu la mun nañ ko opérer. Mhm. pour mu dañ. pour mu dañ loolu mooy indi douleur yi évidemment mhm. loo gis tamit suux bi ci boppam mun na feebar mun na am inflammation donc loolu boo demee ci daal. docteur yi ñu naan orthopédiste traumatologue yi. buñ ko xoolee ñoom dinañ leen mën a jox saafara. docteur am na laaj yoo xamante ne itam mi ngi ci page Facebook. sànq liñ doon liñ doon liñ naa buñ ko eggalee woon. semaine mhm. dina baax. waa xaaral ma jagleel la laaj bi mhm. yëpp dafa aju rek ci wàllu yax bi te mhm. itam ñoom jël nañu temps envoyé seen ay message nee na euh, Fallou Kouta nee na j'ai des douleurs au niveau de ma jambe plus particulièrement au niveau des articulations et il n'a que vingt trois ans waaw kooku nee na téngo yi dafay dafay faral di metti te ñaar fukki at ak ñett la am waaw xam nga euh, docteur moom boo ko waxee sa yëg-yëg da lay laaj lu bëree bëree bëri kañ la tàmbali ak yan yëg-yëg moo ci ànd boo xam ni màggatoo ko boo commencé am ay métit mm. ci téngo yi lu ñuy gën a xalaat moom mooy arthrite yenn saa surtout que xale yi liñ ciy ragal moom mooy ñi nga xam ni dañoo amoon ay angine mm-hmm. euh, angine yooyu fajuñu ko faj bu baax yenn saa ay xorom polleeg ak yeneen yooyu di ko jox wala ñu jox la ay antibiotique doo ko jël li euh, temps bi ñu la wax mu mujj nekk rhumatisme articulaire aigu xëy na li mu wax bareegul waaye bu ñuy njort xëy na rhumatisme articulaire aigu ñu koy tuddee RAA. Mhm. kooku nag du sax tànk yu métti yi moo moo moo moo am solo waaye la mu nar jox ci xol ba moo am solo moo tax day dem si docteur. njort ñu defal ko ay analyse ñu CRP ak ASLO. buñ ci gisee ni loolu la ñu daal di koy faj mhm. waaye mën na nekk tamit ay yeneen tawat lu am solo rek na dem gisi benn médecin généraliste wala benn rhumatologue surtout un rhumatologue et puis incha allah dina mu diagnostiquer ko maanaam mhm. mhm. kii Ibrahima Diaw mu ne moi mon problème c'est au niveau de mon ligament gauche de mon genou à chaque fois que je fais un faux pas il se coince et je ne parviens plus à l'étaler waaw waaw kooku moom lu ma koy wax rek bu mu nee dem euh, CTO ah hôpital mhm. Grand Yoff wala n'importe quel spécialiste en rhumatologie saafara mën na mën mën na ci am mën na mën na am jàmm que yooyu dinañ dem sax ñu opéré ko mhm. parce que ligament yi moom mooy yi nga xam ni moom mooy kooku moom tawatam du ci tengo yi mais buum yi nga xam ni ñooy lëkkale euh, euh, tengo yi muy ligament kooku bu ci amee problème moom mën nañ ko faj ba mu wér mhm. Euh, dañuy jëlaat beneen laaj docteur kii euh, li mu wax nee na dafa commencé di am euh, ay métit euh, ci genou droit wam ak ci li nga xamante ne moom moo di cheville am mhm. nee na mu dem léegi ba jàpp li nga xamante ne moom moo di digg ginnaawam nee na li tàmbali na y'a deux mois fi mu nekk nii lan la mën a diagnostiquer ñaata at la waxu ko ah, ah wul li nga xamante ne moom moo di âge am mais apparemment vu son profil il est jeune voilà xam nga jeune boo xam mi arthrite inflammatoire la mhm. parce que xam nga ama temps wu dem ba sa téngo yi di màggat ak di yàqu ñuy wax arthrose donc inflammation moo ci ëpp léegi nag na mu mel bu dee benn la jàpp wala day wërwëraan ak loolu yëpp foofu la ñuy jéem a xollan la bon nee naa lu ci ëpp ci xale yi rhumatisme articulaire aigu la ñuy am euh, nañu dem rapidement ñu faj leen seet leen balaa seen xol yi di yàqu yenn saa tamit lii nga xam ni moom mooy euh, polyarthrite rhumatoïde nga xam ni day jàpp tëngo yu bëri di comme di di tàmbale lu ci ëpp ci loxo yi waaye tamit ay yeneen kii yu mag euh, tëngo yu mag euh, yooyu tamit gaaw seet ko parce que luñ ko gën a teel a faj mhm. mu gën a tane parce que bu dul yooyu dem ba sa loxo yëpp yàqu doy na waar te buñ ko teel faj dina baax Mhm. Eh, docteur euh, euh, laaj bi la ñuy mujjee jël laataa ngay ñëwaat euh, ci biir waxtaan wi. Mhm. avant ñu leen di jëlaat ki Ndeye mbay nee na moom yax yi mooy tàng. ba der bi sax day sentir ne yëpp mooy bokkandoo mel ni luy lakk. Mhm. alo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam. soxna si tur bi naka la fooy wote man la Ngayta Sylla. waaw Sylla Mactar ñu ngi lay déglu. mi ngi lay dégg ñu koy ñaanal yàlla. Mhm. yokkute ba yëg ko. jërëjëf waaw toog ak moom rek. Mhm. macha allah nga daal di am taw tawféex. <laughs> jërëjëf. jërëjëf. waaw kooku maa ngi koy sant di ko gërëm. Mhm. di ngay tëkku baax koo xam ni dama ko jàppe sama mbokk la parce Euh, ay mboojeen côté mboojeen la maa ngi koy sant di ko gërëm ku baax la. Mhm. Euh, yàlla na ko yàlla may taw féex. amiin amiin euh, famille am maa ngi leen di suivre yàlla na ko yàlla gën a jàppale. amiin xam nga vraiment ñëpp laa ci maasale. Mhm. daanaka Sénégal yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm daal. jërëjëf docteur mhm. kon laaj bi ñuy mujj jël laataa ñuy continuer ci waxtaan bi. mooy ki ne yax yi day mel ni luy. xam nga yax moom bu melee ni luy lakk ci biir rek. en fait xam nga bu ñuy wax yàq sax ñu ci bëri téngo la ñuy wax voilà loolu mooy lu ci ëpp inflammation xam nga inflammation saa yu ñu koy wax euh, ci wolof rek dañuy wax effectivement lakk boobu mu wax ak tàngaay bi euh, bu boobaa nag arthrite lañu mën a wax moom mooy ñaari pàccu émission bi ñuy wax comme dañu ne woon arthrite li koy mën a sooke bari na mm-hmm. te yu ci bëri tamit Euh, dafa nekk tawat yu nga xam ni nga teel ko nemmeeku moo gën mhm. raa teel ko nemmeeku faj ko ak ay pénicilline maanaam ay moom mooy deux millions quatre cent yooyu nga xam ni dañ la koy defal ñaari yoon ay mën na dem ba juróomi at bala muy laal xol bi donc teel ko nemmeeku dafa baax bu dee polyarthrite rhumatoïde tamit kooku moom luñ ko gën a teel a faj luñ ko teel a gën a nemmeeku moo tax ku ci am daal say téngoo yu bëri yoo xam ni surtout nga nekk xale nag euh, dafay dafay tàng di métti rek fëxal nga dem seet rhumatologue yi wala boo jëkkee jaar ci généraliste bi aussi bu la defee ay analyse daal di gis ni loolu la mu daal lay orienté ndaxte ñu la joxee yooyu garab yu nga xam ni dafay arrêté feebar bi yàlla ak et puis daf def éducation wan la li nga war a def yëpp yàlla mun na def ba du dem ba di am ay deformation ak musiba yoo xam ni boo deful dara moom moo moo koy kii donc kooku na daw gaaw rapidement ci ci médecin xam naa moom la ñuy mujjee ci Facebook bi laataa ñuy continuer waat. Mhm. kii dafa ne euh, moom euh, sa tante souffre d'arthrose ses ah. genoux sont carrément pliés. absolument elle marche avec des béquilles. et mhm. au niveau de ses mains elle souffre aussi. de rhumatisme elle doit se faire opérer mhm. aura t des chances de remarcher. Ah. comme avant jërëjëf xam nga kooku moom daanaka arthrose bi maanaam. Euh, loolu nga xam ni moo nekk ci diggante yax yi ñu koy tuddee cartilage. dem na ba mu yàgg xam nga aju tawat doo ko wax gañe na la parce que dafay découragé mais quand même fi mu toll parce que bu demee ba nga xam ni xam nga dañu ne woon métit am na waaye raideur raideur moom mooy li nga xam ni yëngal sa cër yi comme ni nga ko mënoon yëngal mhm. moom bu demee nag ba def ankylose maanaam mënatu ko yëngal euh, loolu euh, sori na mhm. waaye loo gis rek am na saafara parce que dinañ dem ba di ci opérer di def lu ñu naan ar kii euh, or kii euh, prothèse maanaam dindi yax bi teg ko fële daal di koy remplacer que ce soit mu nekk ci euh, genou yi wala mu nekk ci hanche bi. Mhm. Mhm. xëy bu en kooku moom na dem ci rhumatologue rek. bu mu dem sax si généraliste na dem ci rhumatologue parce que spécialiste rek moo ko mënal dara ko mhm. mhm. euh, docteur <laughs> beneen laaj wadd na yaakaar naa ne laaj bu am solo la. Mhm. nee na quel conseil pour une femme enceinte de vingt cinq ans qui a une arthrose et. waaw discale première chose daal bu mu jël ay anti-inflammatoires non stéroïdiens na jël garab yoo xam ni du ko wàññi dara du amul contre-indication. comme ay paracétamol évidemment du ma ñëw sax di ko wax na ko jëlal boppam. na dem consulter médecin mu jox ko li mu ko war a jox. Mhm. léegi dañuy calmer douleur yi ak garab yoo xam ni du wàññi dara euh, xale bi mais en plus dama wax toujours éducation dafa am solo ci arthrose. Mhm. bu demee ba nga xam ni poussée aiguë euh, nga xam ni dafa metti bu tar dañ lay jox repos médical. voilà nga ngay ngay tëdd noppalu ñu jox la garab yu nga xam ni daf koy calmer ngay def quand même ay exercice ay mouvement même boo waree yore yet aussi nga yore ko ñu bëri dañoo def ne bu ñu yoree yet rek mel na ni laago nañu à la limite yat bi da lay dimbali parce que dina tax li ngay lu diis li nga xam ni moom ngay def ci kii bi mu mu def ko. Mhm. bon ñi mën a def ñi mën a fay piscine. ñu ñu ñu dem bokk day Adam Sira ñu dem de euh, Mbodj nañu dem nañu dem piscine après daal di fay ak aussi euh, lépp lu nga xam ne daal ay éducation la. Euh, am na ay physiothérapie ak yeneen ak yeneen ay sona yoo xam ni vraiment dafa am solo du mhm. question rek jël garab moo tax parce que xam nga anti-inflammatoire non stéroïdien baax na trop dina calmer waaye problème bi mooy problème ulcère d'estomac yu mu mën a indi xam ni dafa âgé trop les problèmes de rein wala même des problèmes cardiologiques mhm. donc ñu xam ni waruñu koy jël lu yàgg yàgg yàgg ay période yu limité la te ñun médecins yi aussi dañuy def parfois lu yomb c'est vrai ñi ngi ñuy publicité garab ak yooyu yëpp mais aussi euh, nañu xool toujours effet secondaire u garab évidemment garab yooyu ñoo gën a mën a euh, dindi métit mais nañu xool daal niñ koy utiliser génne contre indication surtout bu dee ku màggat a màggat buñ ko ko jox rek lu koy calmer mu continuer ko éternellement ba nga xam ni daf koy jox ay effets yoo xam ni musiba la daal mhm, mhm, mun na dem ba joxe leen ay problème gastrique absolument ak mhm. yeneen ak yeneen sax docteur Eh, dafa mel ni sax ci uh-huh. biir wax bi tontu nañ ci uh-huh. dama bu dee dafa am poussée aiguë le fait que mu war a def euh, repos médical yenn saa sax bu dee ci ñun euh, médecin d'entreprise yi dañuy dem ba ñenn ñi ñu changer leen euh, seen heure de travail seen seen façon liggéey uh-huh. parce que bu dee liggéey boo xam ne yaa ngi art am arthrose da ngay yëkkati lu diis ak yooyu comme ay manœuvre ñu changer la bu dee ñoo xam ne ci loxo yi la te li ngay utiliser yëpp ci loxo yi la ñu daal lay changer li ngay faral di di di di liggéeyee. Mhm. maanaam daal dama bëgg wax rek ni du jël ay garab rek am naa arthrose naa dem jël ay garab rek mu mu kii dafa am éducation bu ñuy def defal nit ki ci lekk ci noppalu euh, ci moytu lu diis moytu bu ñuy dox tamit ñu am ay ay dàll yu baax bu ñu waree dem piscine ci ñi ko mën ñuy dem di fay ak yeneen ak yeneen yoo xam ni daf ci am solo lool Mhm. Euh, docteur euh, tey kon a arthrite boobu arthrose boobu kon euh, suñ ko déggee amul loo xamante ne pàcc lañ ko mën a jàppee. waaw xam nga tamit subhaanahu wa taala ni mu bindee feebar yi dafa bind feebar yoo xam ni boo boo fajee ñaari fan ñetti fan mu wér waaye dafa bind maladie chronique xam nga maladie chronique mooy feebar yu sax lim naa ci léegi tension artérielle boo xam nga tension artérielle lu tax jël garab bi baax xam nga boo jëlee ni garab gi delloo na tension bi fa mu war a nekk mhm. nga bàyyi ko mu delluwaat donc kooku jël garab bi sa njariñ la donc dafa am tawat yoo xam ni il faut que aji tawet bi xam ni na mu meloon ba mu nekkee xale melatu ko surtout ñu mel noonu tension diabète bu dee diabète yow sa suux bi doon defar euh, li nga xam ni moom mooy transporter suukar bi baaxatul mënatu ko defar kon dañ lay dimbali dañ lay dimbali ci garab ak dimbali la ci régime loolu dafa am nit ku nekk dafa feebar buñ la wax rek da ngay xam ni meletoo comme aji ku feebarul bu boobaa buñ la waxee ni da ngay faju ba mu sa giiru dund nga def ko bu dee arthrose nag comme ay mbirum métit ak ay mbirum euh, yoo xam ni dootul ko dootoo ko mën a def mm-hmm. nañ la jox garab yoo xam ni certes dafay dindi métit mais surtout ñu defal la ay éducation bu baax ba nga xam ni yow di nga mën a di te kii sa sa yaram sa yaram daal sa articulation yi du ankylosé daal du lu dem ba nga xam ne da ngay laagoo quoi. loolu mhm. euh, docteur kon euh, fi mu nekk waxtu bi ñu ngi may def signe ne xoj nañu en résumé daal lan la ñu mën a tënk ci ñaari jàngoro yi nga xamante ne ñu ngi ko doon waxtaanee. waaw tënk bi moom mooy euh, ñaar yëpp feebaru tënko la waaye li ñu naan arthrose dafa fekk li nekk ci diggante li muur yax yi mooy dem ba màgget. lu ci ëpp nit ki dina fekk mu màgget wala mu am lu ci am solo nag rajo dong doy na si jarul ay analyse yu bëri parce que analyse u deret boo def tamit du la wàññi du la wan dara xanaa docteur bi def ko rek pour éliminer mhm. te benn façon rek moo koy indi moom mooy euh, cartilage bu yàqu bu màgget mhm. arthrite nag loolu moom lu ci ëpp day ànd ak euh, li loolu li li nekk ci diggante yax bi la maanaam benn suux bu ñu naan Synovie ak tamit ndox ba muy joxe bon waaye li koy indi dafa bari lool moo tax faj bi mënul nekk benn façon dañuy xool bu dee lu mel ni feebaru goutte la ñu xool niñ koy fajee colchicine zylorique ak yeneen ak yeneen ak ak régime RAA rhumatisme articulaire aigu ñu jox la ay extensiline euh, maanaam pénicilline deux millions quatre cent bu dee yu mel ni polyarthrite moom moo gën a spécialisé kooku rhumatologue yi ñoo koy faj. Mhm. dinañ la jox ay calmants waaye tamit dinañ la jox ay euh, garab yoo xam ni dañuy freiner euh, euh, évolution bi ñu fexeel ba beneen bi ñuy wax nag bi nga xam ni moom mooy nga gaañu. ku gaañu na dem faj góomam surtout bu jegee articulation mhm. bala ndeyu jàngoro yi di ci dugg di indi musiba boobu ñuy wax arthrite septique nga xam ni mën na faat nit mhm. donc à am nga problème demal si médecin bi bu dee généraliste bi bu dee surtout rhumatologue bi parce que ñoom mooy spécialité bu boobaa sa jàngoro daal di saafara. Mhm. ndax am na mesure préventive. waaw xam nga euh, loolu day yaatu. Mhm. parce que def loo xam ni dina tax euh, doo am tawat bi loolu buñ koy tënk comme tawat yu bëri la bu dee arthrose comme ni ñu waxee rek euh, moytu poids bu bëri trop. loolu ci la xam naa du comme émission bi jeex na du ma mën a euh, sori trop bu dee nag arthrite maanaam yooyu nga xam ne inflammation la dañuy xool feebar bu nekk xam nga buñ la waxee nii fii buñ la jamee ndeyu jàngoro day dugg ci biir kooku ki la koy piqûre mm-hmm. war na xam mesure préventive ndax ça warul dafa war a sell mm-hmm. moo tax képp kenn koo xam ni mi ngi dem bay def loolu buñ ko bàyyiwul tamit ak rhumatologue yi au moins médecin yi koy def nañu dem lu ñu naan asepsie fexe ba du ñu def saafara su jur jàngoro par exemple kooku mesure préventive yi moom mooy il faut de l'asepsie bon bu dee goutte ah xanaa di di di ay bilan ah. ay bilan mhm. xam nga bilan boo defee sa acide urique malheureusement du toujours acide urique bi day yéeg parce que loolu tamit ñu xam ko moo tax looloo tax médecine compliquée waaye quand même acide urique lañ koy natte euh, buñ ko xoolee mu yéeg après ñu wax la li nga war a def ak yeneen ak yeneen bu dee polyarthrite rhumatoïde xam nga am na ay test inflammatoire yoo xam ne buñ ko defee euh, ñu daan lay wax ni gaawal daw dem ci euh, médecin bi pour mu faj la mhm. euh, yaakaar naa ne tey nag épuisé nañu li nga xamante ne mhm. moom moo doon thème bi ñu jëloon ju woon arthrite ak mhm. arthrose yaakaar naa ne itam askan wi jëree nañ ci njëriñ te liñ doon xaar itam ci waxtaan wi yaakaar naa ne ñoom tamit gis nañ ci seen bopp Euh, kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi moom mooy rek euh, sant Sénégal yëpp euh, bu ma doon lim moom xanaa ma ni la grande dame margo si mhm. Siga Ndour Mbène Ndiaye en bari nañu waaye. ku lim xanaa rek sama comme damay daaneel rek. ku lim ma wax loolu. mais mhm. daal te di gërëm nag samay waajur particulièrement ki nga xam ni moo ma Euh, je pense que tamit nit bu demee bay ñu koy jox ay jikko yoo xam ni xëy na bon c'est que moom nit warul naagu mais am nañ yaakaar ni vraiment euh, jox nañu éducation bi ñu ngi sant yàlla yàlla nañu yàlla dimbali. Mm-hmm. xam nga lu am solo il faut ma wax ko moom mooy yonent yàlla Yusufa li mu ñaan rek yàlla daal yàlla na nga ñu dimbali ba nga xam ni bis bu ñuy boo ñuy faat nga faat ñu ci jullit te boole ñu ci nit ñu baax ñi. parce que loolu moo am solo mais évidemment ci ci biir dund nii nag ñi ngi essayer rek lépp lu baax lu ñu mën ñu def ko mais di ko sant rek niñ ko waxee ñi nga xam ne ñoo ñu éduqué parce que mënul dara il faut nga jaar ci ay éducation say say say say wujju yaay par exemple maa ngi ciy sant surtout tante Fat ak tante Nogay Ba ba nga xam ni dañ ñoom ñëpp ñoo ci jàpp ba nga ba nga nekk kenn ak nee naa la waaraatekat yi nga xam ni dañ ñu doon ñu ngi leen doon déglu ba lépp lu nga xam ni mooy mbirum diine nga xam ne amuñu woon temps wu sax di ci sori bu ñu leen déggee rek di ko di ko jëfe ak suñuy xarit yeeg ñëpp daal sant ñëpp daal loolu rek laa mën a wax surtout yow mii nag nga xam ni vraiment <laughs> macha allah ni ngay defee émission bi doy na waar quoi. Ah, <laughs> exactement jërëjëf mm-hmm. docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj ñu koy euh, jaajëfal bu baax. Mm-hmm. may wax ne saa su jot moom euh, suñu partenaire la te li may wax rek euh, médecin kuy dem ci moom xel mu. jële soo fay jógee am na médecin yoo xamante ne soo fa demee soo xoolee seen kanam sax soo indaale woon jàngoro yaakaar naa ne war naa ne loolu la ñuy xaar ci li nga xamante ne moom moo di euh, docteur laata sax mu lay seet sa xel war naa mën a dal te li ñu dégg ci ay témoignages ñu jagleel ko docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj yaakaar naa ne xel dal na ñu la koy sant bu baax euh, di ko gërëm di ñaan euh, suñu borom wéral loxo bi wéral xam-xam gi ba lépp loo xamante ne askan wi yaakaar nañ ko ci moom ñu ko cay fekk yéen askan wi itam ñu leen di jaajëfal bu baax yaakaar naa ne ni ma ko waxee woon woon ci ndorteel ba kuy toog ci tele bii di wax ah, ku la seetaan nga bëgg kuy wax ci rajo ku la déglu itam nga bëgg te saa su lay déglu mu jëlee ci njëriñ su lay xool tamit ah, mu jëlee ci ah, njëriñ ñu yéen ñi safoo leeru jamono weer weer la dinañ ñëwaat ñaaru ay bés bi ñu dëgmal ñu nar ci feggoowaat su soobee suñu borom ak docteur Cheikh Ahmed tiijan Mbodj ma dellu si waat ci kanam tuuti après tampon bi si seen troisième et dernière partie seen magazine Grand Soir